asalaamaaleykum mbokku internet Dakar Midi ñu amati mbégte ak kontaan naa la léegi may saa su waxtaan waxtaan lamb ñu amati mbégte ak kontaan naa la di nuyuwaat ak lu lamb yëpp. li nga xamante ne nekk lu ñu naqarlu mooy yàq-yàq yi nga xamante nañu nekk ñaari at ñaari at xale ñu ngi ñaan jéggal bu baax a baax ñu wàññi leen li waaw maa lay fay xam nga di àdduna di nuyu làmb xam nga naa mu mu ma dëkk suma mag yi nekk bitim réew ku ko mel ni Moustapha ku mel ni maanaam Baye Fall bu baax ak Baye Noox ak V ñoom suma yi mag lan dañu sonn si man xam nga ñu suma mag yi nekk fii suñu taaw aada xam nga ak ëmm euh, ak leen waaw en tant que promoteur ma laaj la mooy li nga xamante ne mooy xale yi keroog li ñu def si stade national Pikine bi xoolee yàqu-yàqu yi stade bi suñu stade bu ñu ko yàq daa mel ni ñu ko yàq. waaw loolu xam la ndax tey suñu yëf la suñ ko yàqee suñu yëf la ñu yàq donc ay xale lan mais baax na tam ñu ñaax leen ndax am na am na seen kii. daan boo xam su ñu ko tegee du nga tax tey keneen ku bëggoon def sax du xalaatoon loolu du nga bàyyi mais dañuy ñaan tamit ama li euh, kii yi nii sama boobu liggéeyukaay la nuyu sama la si waax bi day sonn si caam. loolu moom am di am na moom waaw am na waaw abaar waaw man maay ñoom ñoom ñooy man. dëgg la dëgg ñu ñëw ci li nga xamante ne tey am na ay dimbal yoo doon def ko si bi defar nga ko est ce que yàlla xam na ni soo ñëwee suma gaal la nii. mun mm-hmm. naa woon ay soutien. lu ma kàcc bi indi. ñun chaque jour dañuy dimbali doomu aadama. saa yu fi nekkee ku ñuy wax ni sa soxla yàlla xam ne su fi nekkee dañ la koy jox du ñu xaar ba tam xaalis ñëwul soo ko def déedéet mais saa su nekkee ku ñu wax seen seen ndimbal dañuy yëg di jox la. nekk benn jeune boo xamante ne yaa ngi ci dëkk benn gox boo xamante ne nga di leen dimbali parce que seen li ne tam bi nga lu am solo dimbali ñi nga xamante ne côté boobu ñoom ñoo ne seen doole bariwut ñu ñëwaat si li nga xam ne mooy korité xam naa ñu bari tam di soxla genre dimbali mel noonu. Ah, moom laa la wax léegi man <laughs> du xaar chaque événement ñu soog a dundal gars yi déedéet chaque jour dañuy dundal jaamu yàlla yi te incha allah koor dem man dama lu lu ma am laa gëm ñii tamit lu am dama koy jox ak sama bos ñu boole dundalu Medina. baa nga objectif lan la si lamb rek la yem si lamb ji maa sama métier xam nga tey yàlla defee leneen. ñoo ñoo ko taxaw maintenant suba dañ koy taxawal ndax ñun ay ndaw lañ fi leen juddoo kii 31 ak Alcoolis la juddoo man 33 bi Alcoolis am na rue 19 abaa rue 31 kon ñu ñëpp ay doom maintenant la politique si mais lépp lu lu avancement suñu gox ñun teel nañ ko ànd si. ñu gis keroog ki nga xamante ne mooy jën kër gi bëri nga indi ko stade ngeen taxawu xale bi yàlla may ko victoire ci kaw Modou Anta bu kees. te it noo gisee loolu. waaw moom laay souvent souvent moom laay faral di wax jël suñu xàq la bu ñu ànd ak moom du tay xam nga bu ñu ànd ak moom du tay ànd ak moom avant mu dugg si làmb kon tey suñu demee ànd ak moom ba yàlla suturaal ñu doon promoteur moom bis bu mag kon lu ñuy wax mooy dañ koy war a taxawal te ànd ak moom gunge ko ba si làmb ji ndax loolu mooy suñu cër. tey su nga bàyyi mu dem kon su boobaa day mel ni wërsëg bu ñu yàlla sedd moo tax ñu bàyyi jën ñu genre boobu parce que loolu am ñoo xam ne dañuy ànd ak nit soo yàlla wërsëgee da ngay xeeb man duma genre boobu man képp ku may àndal bis ñi tey laa la gën a fonk waaw moo tax jour ñu ànd moom buuree ko may ko doole may ko fit

ndax doomu mën naa la dañuy baal wu la ndax tey am na ñeneen ñu fi nekk mais ku deful mënoo ko sant mënoo ko gërëm soo ko defee na xam ne soo ko defee naa fekk la te man duma saa boobu Bamba lu mu def yoon la mu def ko te dañ koy ñaanal yem bi oyof ci kawam Cheikh Ba jàmbaax la liggéeykat la lu mu def si si jër dañ koy ñaanal yàlla sutuxaal ko xam nga lu tax ndax ñun ñëpp ay doom mën naa la ñu mën naa leen gën kon tey soo ñu defal lu baax soo ko waxul loo gox. Karéem Diène Diène digg dig nañ si benn kii nga ne Diène du bëreeg mbëru Fass pourquoi sa nekkee Fass nag. ah amul yow loolu moo la fii nii waaye le six moo la fii nii. le six moom fii nii nga fii nii. ok ah. mën nañ si yaatal. c'est vrai dama sepp dama sepp laa mën di wax ni waaw. Ah. mais ñun ñëpp mën nañu ko yow na la jëm ba waxtaanal. xam nga ndax. naa benn la. dëgg la ñëpp benn lan. jëm ñu dee premier combat donc ay xale lan. dëgg dañ màgg. ma ne Fass ak suñu jëm. la mu xaju fa. ndax su ma toog yëpp benn la. rog rose bu ma seetaanoon. combat bi dama ko seetaan di ko supporté te yàlla tax kon am na loo xam su fa xajoo doo forcé te bon man damay combat bi du am su may fan gudd maa nag de. am nañu. fas kese kii rek sax mais fas boppam jéem di boog ñoom dëgg la ñu tëj foofu suñu baara xam naa ñu continuer si li nga xamante ne mooy lamb ji nga tëgg ak yéen activité lamb dama ji lu muy doxee baaba yéen en tant que seen promoteur yi ndax arrangé na leen waaw ndax lamb du foos tëgg du foos bëgg-bëgg la soo demee boo xam ni metti sa côté waaye enjeu la wala am fulu bu toll ni màggal Tuuba bàyyi ko fa dem seet leneen jaww coow jaww xuloo mm-hmm. loolu dong la amul leneen. des fois yi nga xamante ñu teg leen lu comme boo xoolee stade bi des fois ñu prix bi métti na lool que suñu stade la ñu ñoo ko moom man jàpp ñu wàññi sax kase bi kase stade bi que ndax lamb nee nañ ne day créer emploi parce que bëri na xale yoo xam ne am na liggéey si lamb lañ yaakaar ma wax yëf la ku man sa yëf moom xam waññeet ak yenn test yi quoi. ndax su ma juumul esaat suba li def naa ay vingt mille na xam ay cinquante boobu daal. mais làmb bëggoon doon ay cinq cent mille. xam nga métti na. waaw nañ ko wàññi. zéro tamit ñoom suñu kaawaange la ñuy sàmm n'est-ce pas kon loolu fay. <laughs> waaw kon ndax Zeyna 500000 la waaw César tamit su ma juumee 500000 la parce que day dégg 1 million 500 waaw war nañu jàppale promoteur yi ndaw loolu mooy dëgg. nga tëgg ay journée am solo Baba Sa boo jógee lamb jóg lamb yëngooti nga yëngal rawaanu lamb xam nga sax gàmb gi mën naa loolu lamb lamb dàq ko ñëwaat nga jëlaat dugub moteur teg ak coince loolu lamb dàq ko tegaat ki xam ne mooy caatu yarax ak Zal Bawal nga tëgg ay combat neex. waaw ñun avant tout ay kii la ay amateur la yàlla xam na ni parti bu ñu féetee fii chaque jour dañuy waxante kon su kii fu ñu féetee wàllu géej chaque jour ñoom dañuy waxante foofu làmb kon suñu xamul làmb ñu ñaar su ñun la xam nga bu ñuy waxtaan nag seen jël euh, gàmmu sox jël yeneen combat yu ndaw yi booloo si biir jël mañu ka jogat balde maam moo daaxu kaw Cissé kaw Cissé Modou si gàttal le six ku fa ñëw sa dina sedd si làmb ku fa ñëw dina gis leneen te incha allah amateur yi jox nañ ñëpp dañ ñëw si jàmm ñibbi si jàmm te coow du fa lenn du fa am lépp lu si wax dañ maam dañ ko zéro ba mat sëkk di def appel si Pikine kon ñoom ñooy dalal maam yéen mbër yi kon ñoom ñooy wane exemple te loolu ñoom ñoo wane exemple ñee su ñëwee sexe leen ñoom am loo xam saa ñu ko wanee rek leneen mun na am te ñaan ñu yàlla leneen du am kon message bu may joxe la te incha allah su kattan suñu borom lépp mu wax dinañ ko def du am benn faay soo suñu borom. danañ gis say lamb bu am ay surprise yoo doon te gis combat combat bi nga xam ne moom itam nga am na surprise boo si defoon mais yii xaar. waaw. ndax booy méritu nañ maam lu nekk kon tey soo jëlee benn œuvre tawal nañ ko pour man xam nga la daal ndax olof day ne maam nit lu muy maam si muy jaamoo yàlla waaw yéen siy xalaat nag ak ñoom am bi ñoom xalaat xam bu baax waaw du nuyu tamit suñ mën a booy ku faal Belgique. nekk Belgique mu nekk booboo xam ne jàmbaar la liggéeykat la boobu gëm boppam boobu bëgg Medina ndax loolu day am solo ñu koy wax ndax pour ñeneen ñi mën si jàng. waaw ci gars ah, kii waaye kat waaw. sant maa ngi lay fay maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu ñëpp mm-hmm. ku nuyu ku si nekk sa sant mm-hmm. wax dëgg yàlla sama gars yi maa ngi leen di sant di leen gërëm mm-hmm. maa ngi nuyu ñoom ñëpp di nuyu waa canal 4 yëpp di la déglu. ngeen demul tëgg ay journée yu am solo tëgg ay làmb secret seen secret lan la parce que saa ba ñu làmb jóg. waaw ñun moom ay xale lañ yoo xamante ni si làmb la ñuy yëngu. te suñu promoteur bi amateur la woon. wax dëgg yàlla waxuma sax lam ay mbapat da débuté. wax dëgg yàlla jëm kayre bi muy nekk xale ba ni muy nekkee mag yëpp si mbapat ak yu mën tëgg si koñ bi sama mag ayu kon da ko dem tëggal ay mbapat ay ñeneen ak ñeneen macha allah. wax dëgg yàlla ba tey yàlla def ko mu nekk promoteur ah kon xam na. lamb yi neex ak lamb yi nakari xam nañu war a boole ak gars yi tamit ñi nga xam ne sax du dañuy werante fii ay lamb wax dëgg yàlla affaire bi daal nii la demee di kontaan si loolu nga xamante loolu mooy secret bi mhm. yan matuwaay ngeen di jël nga xam ne mooy seen làmb yi jëm bi parce que actuellement nii moom moo gën a jàmp instant bi. le macha allah ñu ngi siy jël matuwaay yu bëri. wax dëgg waa dina am sécurité dina neex dina xumba wax dëgg yàlla comme moom lu mu wax rek. wax waa Pikine dañ leen di fekk si. te Pikine bu jugee ñëppay jug. soog kay tamit bu jógee jugee Tëngéej am a neex ak ñëpp. ñëppay jug waa Tëngéej bi yëpp. di wax waa Pikine ñoom tam ñu def nànk rek ñu xamante ne ñoom da leen di fekk si. xam nga ñu def affaire yi nànka nànka rek. incha allahu rabbi parce lépp dina baax. sama xam ko ba tëgg ma waaw loolu moom combat bu neex la macha allah loolu moom. loolu doy na grand combat na grand combat wax dëgg yàlla <laughs> wax dëgg yàlla combat wax dëgg yàlla yàgg nañ ko kii. xam naa dégg naa sax ñu ne bëri woon nañ ba pat xaw ma nu mu demee noonu wax dëgg yàlla combat bu neex la daal lu mu si mënti xalaat combat bu neex la combat bu neex ak yeneen combat yi kii nekk Fass Mbaw Mamor. Mamor Guerrier la ak Pël bu Daaru. Mamor xam nga champion Pël bu Daaru tamit du bàyyi mu sedd wax dëgg yàlla tamit combat yi neex la daal. Mhm, combat yi neex la waaw combat yi moom grand combat yi dàqu leen. Mhm. Mhm, macha allah. nan ngeen nar a jugee si lamb yi si mobilisation ak drapeau Elhadj Kër tamit. waaw ak Assane Bongo. Ah, ah. waaw waaw Medina drapeau Medina la ñoom ñëpp si doomu Medina lañ. la lañ dëkk su ñuy ñëw dinañ ñëw ñëw bu sell bu rafet bu civilisé ñëw ak dal ak salaam ñëw. bu lépp rafet daal macha allah dina ñëw ñëw bu rafet ak nu ma la ko mënut a waxee daal. lamb jooju daal ak drapeau bi lépp dina neex macha allah parce que lamb Medina la. waaw drapeau Medina la mooy. dëgg la doomu maanaam lamb Medina la. lamb ji moom lamb yëfu daal. lii itam day wane Medina war nañ gën a booloo gën a jàpp. comprendre ñu jéem a jàppalante suñu biir. di woote waa Medina yëpp. Fass Colobane Gueule Tapée waa Soumbédioune waa Canal 4 ñëpp si bis bi. comprendre parce que bis bi ñu ñëpp ko bokk parce que doomu Medina bu jugee ñëpp war a jóg te Medina ñëpp a mobilisé wu nekk benn yàlla ñu yàlla defal jàmm yàlla yóbbu ñu si jàmm xam nga indi ñu si jaam yal na fa yàlla wis ndox bu sedd daal ba li ñu si bëgg daal suñu yot yal nañ ko si daraja Seydina ah, seen bis moom xam naa ne. waaw bis boo koy yàqam. waaw waaw loolu moom dafa leer Abou maa ngi lay nuyu du nuyu site bi. Dakar Midi waaw maa ngi lay nuyu di leen kontaan ah. Mm-hmm. di rafetlu seen teewaay bi yéen fii seen kër la koi amoo leen fi sens interdit amoo leen fi frontière comme ni ko gars yi waxee rek ñu ngi lancer message si drapeau El Hadj bi waaw ak sunu rakk assan bëngo ak sunu beneen grand frère boo xam ne nii yàlla da ko fi jëlee moom dañ koy rendre hommage ci jour bi ñu ngi koy woowee Usu Boy ñeneen ñi di ko woowee Joël ñu ko ciy rendre hommage. si euh, combat Paul bu daaru ak euh, comment dire keneen ki Mamor waaw di ci woo tamit autorités yi Medina ñu ñëw jàpp comme ni ko sama frère waxee léegi Karim Medina benn bopp la kenn mënu ko xar ñu ñëpp benn lañ on est ensemble nañ bokk ndey ko baay ànd liggéey wa xam nga loo xam ne ni luy jëm ka luy jëmale jeunesse bi kanam comme Baba Diaw li muy def moom mu ñu nii mënoon na yor xaalisam chef d' entreprise la yemale ko ci boppam ak ay copain am ñun ñii rek ah. ah. mais loolu moo ko war mais bay olof dafa wax bay sa wewu tànk. te ñun loolu la ñu loolu ñu jóg loolu la ñuy jógte lépp lu ñuy def fii lañ koy njëkk commencé après bu demee ba réussite am ci kenn du ne cam <laughs> l'avenir est devant nous ñoo ngi ñaan yàlla tamit yokk mhm. comme suñu grand promoteur yi fi nekk ñëpp ñoo ngi ñaan yàlla yokk waaw mais comme li ma la wax rek ñun toujours dañu am objectif liggéey pour jëm sa kanam pas pour ay nekk fii di concurrence ak kenn benn message nag laay lancé pour Médina ñu xool mu ñuy jëmalee suñu jeunes yi kanam nekkuñu ci ay détails ya nga xam ne nag am nga yéen a ngi yéen yéen a ngi suivre a ngi suivre ay ci Médina mais boo bëggee dëgg-dëgg les am nañ leneen lu ñu tal lu dul ay nekk fii di saaga wala di xuloo wala di xeex ñun fi lañ dëkk fi lañ juddoo fi lañ yaroo kii rii 30 ans kii rii 33 man rii 19. kii yi 30 ans kan moo ñu mën a génnee Medina. ñu nekk fii di di jël seen jël seen làmmiñ di saaga di wax boo xoolee dëggantaan ñu Medina. loolu message boobu maa bëgg nga génnee ko. waaw dégg nga ah. yeah. ñun nag luñ ciy sànni bariwul quoi xam waaw ñu ciy la bariwul quoi waaw ñuy waajal le 6. diggante soq gàmmu gay combat bi yàggoon na. mbër yi daj nañ ci ay coono yu metti promoteur bi tamit daj nañ ci ay coono yu metti xam nga sunu borom ñëw ak ndogalam quoi xam nga mais loolu yëpp dañ koy sante yàlla xam nga loolu yëpp dañ koy sante yàlla quoi waaw comme que nag amaat nañ gat muy muy le 6 juin ñu ngi ñaan yàlla mu yóbbuñ ci jàmm waaw ndax nam nañ làmb ji ah mbër yi ñun ñoo leen gën a namm làmb ji fuuf barki yonent bi ndax ñun ay amateur lañ waaw. buñ jëlee mbubu promoteur bi teg ko ne ay amateur lañ xam nga kuy añee midi sa kër dem stade toog midi ba 19h kooku amateur la voilà xam nga xam nga kon nag ñu ngi woo ñëpp di woo ñëpp ay drapeau El Hadj Keita la Assane suñu rakk ak xam suñu grand Joël ñu koy ñaanal yàlla na ko yàlla xare àjjana waaw. ndax amoon na ndax euh, daf ñu indil coupe Dames mosul am coupe ci àdduna barke yonent bi mu indil ñu coupe 2013 xam nga kon coupe boobu mu ñu indil ñu ngi koy ñaanal yàlla ah yàlla na koy jubilé ca àjjanay firdawsi barke yonent bi moom buñ ko mës a fàtte quoi xam nga Baba Diaw nag boo gisee mu def loolu xam nga moom nii la mel quoi naturel nii la sax nii bu góor da doon dajale xam di bokk. xam nga ba ci ay magam kon moom bu ñëwee jaar ci tànk yooyu xam nga lu mu war a def la rek waaw ndax dafa judd fekk ci kër gi kon su melul noonu rek kon xam nga dañ ko koy laaj quoi comprendre nga xam nga lii nag xam na ñeneen la yéem mais ñun ñu nekk ak moom yéemunu quoi comprendre nga dañ koy ñaanal yàlla gudd fan wér xam nga li mu mbébét ci làmb ji ak ci jeunesse su Médina bi tamit lim ci mbébét yëpp suñu borom defal ko ko quoi. xama ñu lay sant yow it abu di la gërëm di wax ne yokk ñàkk ñaan nga waaw yow ñu ngi lay wax yow ñàkk ñaan nga waaw ñu ngi lay bëggee bu baax a baax a baax waaw saa yu la soxlaa nga ñëw waaw saa yu la soxlaa duñ la woo sax nga ñëw ñu ngi lay bëggee bu baax a baax a baax waaw dëgg la ah waaw moom waaw yow moom mention spéciale waaw ah, xaaral jox la sama rakk ji mu sànni ci kaddu moom mooy jaay ticket yi estat mais day naajee yeewu ndaw daa génn mais moom mais moom day naajee yeewu <laughs> mooy jaay ticket yi ah. day naajee yeewu nag combat soq bi nag waxal moom. waaw mais mais moom de mu teel a ñëw soxna si da koy téye quoi ba midi. waaw siyaar naa leen. di siyaar ñëpp. Ah. Ah. ma ne siyaar naa leen di siyaar ñëpp di siyaar sama papa ji toog buy di si di siyaar staff yëpp ñoom Amady Moustapha Aba Abdou Karim yeneen gars yi quoi à ah, de su ma limee daal damay jum quoi staff bi moom bëri nañ quoi amaana ñii ngeen fi fekk rek mais am na ñeneen nekk ci ñu ginnaaw quoi di sant ñëpp tamit waaw te di tamit benn appel quoi mooy le 6 di lancer ñëpp rawatina jeunesse Médina yi ñun ay Médinois lañ ñu am Médina moo ñu ko gënal bilaay walaay taala kii fu mu teg tànkam amaana nam njottam sut na loolu quoi weesu foofu noonu. dañ koy ñaanal suñu borom lépp lu mu sumb rek suñu borom jàppale ko dooleel ko may ko si kattan may ko si wér may ko si ndam parce que ñun loolu la ñuy ñaan quoi bu amee ndam rek daanaka ñun ñii am nañ ndam parce que moom mooy suñu ferte rek quoi voilà te tamit di ñaanal tamit jeunesse su Médina te tamit di leen lancer appel ñu ñëw jàpp si combat bi parce que boo xool combat ñoom seen combat man benn combat moo si amoon solo ñu combat Mbagnick Kaïré la Jacob Baldé combat boobu man moom si ëppal importance quoi lamb du waaw combat boobu noonu lamb amateur la quoi boo amateur yëpp nañ ñëw teew waaw ñu ñëw seetaan si lamb yooyu noonu man lamb yooyu man moom c'est pas importance waaw man moo ma si lamb ji mo baax parce que damay diggante ak soxu mhm. bu bu la tëggee mhm. sa xel day dal mhm. amuñu benn problème ci combat bi ak léegi ba bañ fer bi ba léegi ñu aj combat yi mu am benn problème ak seen diggante ak baax te bëri na ay promoteur am seen combat fa yàqu waaw moom laa wax ak moom laa waxoon si commencement bi man yàlla dama suturaal ni mu mënul doomu aadama dama si forcé man noonu noonu laa mel sox suma waay la gàmm suma la man ma ne ma kii moom yow xaalis rus naa loolu maanaam maa ngi ñoom amuñu problème xaalis amoon nañu ay jox nañu la avance. man ku si nekk jox naa la avance ba sa reliquat sax. waaw ñu ngi sincère tëdd. dëgg la. comme waay lan te wax dëgg yàlla sox gàmm mammo poobu daaru mañikaar zorat balde kaaw sise mool séré ba si combat yi ndaw yàlla xam ni amul kenn koo xam ne daf na sotti wax ma lu may metti yàlla xam na loolu ñoom bëgg naa ko si génn as ku si génn sama tëggaat la yàlla xam na woon man na bëgg naa le six bi lépp lu may mën def pour ñoom tamit ñoom ñoom bëgg mbàkk Seexu Xadim nga maan si billaahi du nuyu suma gars amuma seen fay man Baaw nga damay laaj ne waa ngaa waa ngaa waa ngaa waa ngaa ka ma nekk sa ginnaaw. waaw sëñ bi ma koy nga nekk sama ginnaaw. ñu ñëw nga seen alal du ma jox ma jël si boole. mais jour dañuy xuloo nag de. waaw jour làmb moom boo. ma gën liggéey. Ah. man lépp lu am caaxaan da siy am man gëw ma ko man dama gëm liggéey lu am lu wax dëgg la de su ko baax non dañuy xuloo ba ba tegal di dend ndax lépp bëggaat mu daax te presse bi liggéey si làmb kontaan si yow ñoom tamit ñu ngi leen remercier saa su ne dëgg nga yombal sa bopp bari na ay promoteur am mm. ñuy ji foo xamante ne mu neexee ku nekk xam nga téye sa bopp bu ñu bëgg am sa interview yow day jafe mais ñu ñëw yombal lépp nga yàlla yàlla noonu si yëpp yàlla doxal ji yàlla def si xéwal mu neex bu lamb ji neexee ñu dañuy kontaan parce que neex suñu <laughs> waaw amu problème boobu. ak ak benn média. Mhm. sama combat ku si jàpp soo ñëwee dugal. ndax ñun ñoo fa. Mhm. mënu ma dem sama yoon. ay jamono kay xamu woon baawa. yéen yaa tax ñu xam baawa. kon su ma nekk as dëgg. war naa leen di bàyyi xel. ñun ñii ma àndal. su ma yàlla demee bañ a xajuma ak ñoom. Mhm. yaa naa bàyyi làmb. ak sëriñ Tuubaa wax la nag si bu baax man ñii yaa xam abu yow moom xam nga comme ni ma wax sant yow ma la ñaanal yàlla xam na xam xam naa waaw boo encouragé nag boo gëm sa bopp gëm nangu sonn si liggéey tout à ma gis résultat bi. incha allah incha allah. waaw xam nga. Ah. comme woo sama ay mbokk ñëpp. Ah. di woo famille Thiam bi ñëpp. woo suma doomu baay xam nga di woo suma doomu mag yi. di woo suma ay mag mag Kaaba. ndax wax dëgg yàlla. su ma nekk si ñoom ñu jub. ñu ngi si leen. xam nga di mag amul baag. Euh, bàyyi moom ku ko vee ak nee mais du ñu koo xam ne tafa moom chaque jour dama woo téléphone damay defal lii moytu lii bu wax nii day dem sama xulóog man si loolu. xam nga ndax loolu dafa bëgg. ma nekk si yoon bu baax. xam mm-hmm. nga mooy tafa te tamit wax dëgg yàlla ku ñàkk ki ñaan la alalam du ko boole ay raqam ak Seexu Xadim xam ma souvent dama koy dégg wax chaque jour mais xel day fat waaw ma samay mag. barke Mouhamed dama leen ñaanal fan bu gudd ak mëne xam nga bu ma gën a nekk booy ñu ma yàlla xam na ko mel ni ëmm moom non su ma su ma am yàlla xam na daal maa ngi ñaanal ñëpp jaama waaw ñaan sama booy nekk fi ay mën ko xam ak Iba Iba moom yàlla moom la sedd waaw mais damay ñaan nag yàlla defal ñu taw fex ñëpp ma moom du ma ko sax bu ñu kii dama ma bàyyi waaw su ma amee doole gérer na si ndax su ma alal da ngay sàmm comme alalam ma woon moom moom waaw. waaw jaajëf ah, <laughs> jërëjëf waaw bés yu yow a di mbégte kontaan lool lool lool waxtaan ak waxtaan lamb xeexewu lamb daal eh, jeune promoteur a ngi nii Baba Diaw di nit ku baax di ko ñaanal yàlla yàlla yàlla yàggal taxawaayam ci mbirum lamb nee na gars yi ñooy 34 ngeen xool yu rafet yi nga xamante ne bagaas yu baax yi yi Baba def yi nga xam naa ne moom yi moom baax na si daal si si gars yi ñëw seet seet affaire yi comme que eh, président daal bi dañuy dañuy jëm day dimbali gars yi si mbirum lan financement des jeunes emploi des jeunes am na jeunesse yoo xam ne ñu ngi fi ñoom ñu ngi kenn emploi na état bi ñëw xool leen jàppal leen dimbal leen bu baax waaw bi am nañu dimbali ay emploi am nañu ñu war a dimbali xale yaa ngi nii ah keroog gis nañ ki nga xam président Bougane jaar na fi gisal fi nekk ak ñeneen ak ñeneen nañ ñoo jàppale ñi nga xamante mooy ndaw ñi dimbal leen canal fii di ñaanal Bassirou tamit jàmm ak toujours ak seen émission bi nga xam ne mooy émission Shukran ànd si baax ba Ousmane ñaan la yàlla yàlla yokk wér gi joxe ko jàmm ak salaam bu baax a baax a baax mais Bassirou nag sama waay la yàlla yàlla guddal fanam parce que li ma mënal kenn mënaluma a